Séninfo point net dalee nag jàmm si tënku xibaar yi tey mardi décembre 2023 dañ koy commencé rek fële si tribunal bu Ndakaaru ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko euh, moom la ñu euh, bëgg a saytuwaat ndax moom dañ koy réintégré si liste électorale yu pas mais tribunal bi euh, mu ngi wéyal procès bi donc ñu ngi sax si mardi bi nii di tey nag la ñuy xam ndax ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ndax dañuy day day bokkoo.

ñu ñëw rek si propos yi nga xamante ne avocat maître Moussa Diop nekkoon ancien directeur de Dakar Dem Dikk ba pare nekk aussi candidat à l'élection présidentielle yëkkati na ko moom avocat bi dafa de Sénégal Macky Sall dafa am euh, benn euh, licence bu mu attribué ak euh, benn compagnie patronale benn moom moom ki nga xamante ne moom mooy maître Moussa Diop nee na dañoo Sénégal dafa am une mine de diamant. Euh, donc ñu euh, ngi koy découvrir fële si nord du Sénégal te ñu ngi koy euh, joxe nañ autorisation gi nga xam ne dañ jiitu réew mi ak ancien ministre des mines Aly Ngouille Ndiaye noonu xam nañ ci dara joxe woon nañ say autorisation pour ñu commencer exploitation bi si kaw takt bu si bu mu yëkkati nag kàddu yooyu nag ki nga xamante ne nag moom mooy Aly Ngouille Ndiaye moom porte na ko plainte ñu nag ki nga xamante ne aussi moom mooy Omar Sarr nekk actuel ministre des mines moom démentir na information boobu ki nga xamante ne aussi moom mooy Euh, procureur de la république aussi autosaisiroon nañ si euh, dossier bi ba nga ba ñu jël si ki nga xamante ne moom mooy euh, maître Moussa Diop enquête ko mais nag bu mu jàkkaarloo enquêteur yi ki nga moom mooy avocat bi moom nee na ay kàdduwaam moom retiré wu ci dara lu mu wax am na si ay preuve te moom tamit jëm na indi ay preuve si li nga xamante ne accusation yi nga xamante ne moom mais Moussa Diop def na ko donc Euh, moom depuis démb placé nañ ko à garde à ñu ngi koy enquête waaye ba tey rek moom mu ngi téye ay kàddoom nee na kàddu yu mu wax loolu moo am te mu ngi si essayé indi ay ay preuve donc ñu ñëw si mairie Sénégal yi mairie Sénégal yi ñoom dañoo benn def benn collectif bu bees boo xamante ne euh, collective bi mu ngi mu ngi ëmb lu toll si euh, téeméer ak fukk ak ñeenti mairie donc ñoom nee nañ dañoo bëgg daal ñu gën a concrétiser li nga xamante ne moom mooy ay engagement am nga xamante ne nag mooy maire euh, de la commune de Taïf muy maire May Bitine moo ko xam xamle. mais yooyu ba tey nag ñu ngi exiger à ce que euh, ñu respecte engagement yooyu ba pare aussi euh, def aussi li nga xam ne moom mooy équité si yenn programme mu état yi nga xam si yenn programme mu état yi mel ni lu si mel ni FERA PUDC Promoville AGETIP ak Procasef ak yeneen kuréel yoo xamante ne nguuru Sénégal moo ko ëmb. ñu ñëw si international ki nga xamante ne moom mooy euh, ki nga mooy l'équipementier euh, euh, sportif Puma moom nag dootul jox mayoo ki nga xamante ne moom mooy équipe Israël décision boobu nag jël na ko en fin 2022 donc avant que attaque bi nga xamante ne moom la moom mooy am fële si Gaza commencer parce que attaque bi mu nga commencé le 7 octobre sur le site d'Israël décision boobu remonté woon na depuis depuis fin 2022 donc ki nga xamante ne moom mooy Puma dootul jox mayo euh, ki nga xamante ne moom mooy équipe nationale d'Israël parce que ñoom si ay euh, euh, objectif la ñuy sukkandiku te ñoom suñu jàppee seen objectif ak seen règlement intérieur ki nga xamante ne moom mooy équipe Israël atteindre objectif yooyu ñëw si Air Sénégal Air Sénégal ak Air Côte d'Ivoire ñoom dañoo signé benn partenariat commercial ñaari compagnie yooyu nag ki nga xamante ne moom mooy Air Sénégal ak Air Euh, Côte d'Ivoire ñoom dañoo bëgg a boole seen euh, doole pour def benn compagnie euh, def benn accord commercial donc programme bi mu ngi war a wéyal fii ak février début février deux mille vingt quatre ñi nga xamante ne nag ñooy nekk passager ñaari compagnie yooyu nag nañ bénéficier d'un réseau commun d'un réseau commun ak un large choix de destination de fréquence et d'option de connexion lan la ñu xamle donc li nga xam ne mooy programme fidélité teranga ak Smile bu ñaari opérateur yi nag duñu duñu continuer nag di wéy ah, euh, duñu continuer nag di wéy ak compagnie yooyu. ñu jeexale ko ci sport ki nga xamante ne moom mooy euh, Lamine Camara moom la ñu jox titre meilleur euh, jeune joueur africain de l'année deux mille vingt trois donc joueur boobu nag moo nekk F Metz joueur bi aussi mu ngi nekk F aussi saison bi nag mu nekk lu ràññeeku ah. mu joué lu ra lu lu ràññee ñu mu joué mu nekk euh, joueur boo xamante ne ràññee nañ ko ci saison bi nga xamante ne moom la nekk nii parce que moom am na ñaari titre titre de champion d'Afrique U20 ak ak donc euh, ki nga ne moom mooy Lamine Kabara moom mu ngi euh, succédé ci palmarès bi ki nga xamante ne moom mooy Pape Matar Sarr général de génération du foot.